asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo dëkk ci goxub Saalum di njabootug lislaam ñoo ngi am jataay jataayub mbekte ak jataayub sant boo xam ne ñu ngi ko toog fii ci kër sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir jataay boobu nag muy ay kàddu yoo xam ne jóge na ci kilifaam di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saalihu yàlla na fi yàgg lool tànn ko wër ginnaaw bu mu ko yónni woon kàdduy sàkku ndimbal ci bokki jullit yi nga xam ne ñoo dëkke Saalum mu demoon fa ñenn ñi mu jokkook ñoom téléphone woote bi mu jaarale woon ko ci sëriñ Mor Si moom sëriñ Mahmoudane mu jottali ko ci jullit yëpp ñu wuy si woo xamante ni bii eh, kawe na njortam liggéey ba it mel noo xamante ne bii rafetaay ba jéggi na dayoo sëriñ bi yëkkati ko ay kàddu cant nag yóbbu yónniwaat ko ko ci ñi nga xamante ne bii ñoo wuy si woon woote boobu nga xam ne alquran mi ngi wax ne saa yu ngeen déggee woote bu jëm ci yàlla gaaw leen dem wuji ko waaye nag waa amma bi nihmati nag rabbika fahadis saa yu ñu leen defalatee baax it na ngeen yëkkati kàddu yu cant kàddu yooyu nag dañuy bàyyee sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir mu jottali leen ko billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sant yàlla julli ci yonent bi di santat sëriñ bi di yeesal suñu jaayante mu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp nuyu mbokk yëpp nuyu mbokki jullit yëpp di jot li cant ak ngërëm loo xam ne mu ngi bàyyi ko ci sëriñ seex mu sëriñ Saliou jëm ci mboolem ñi nga xam ne euh, wuy si woon nañ ci liggéey Touba Darou Salam boobu yi ci sunu mbokki Saloum yi te seen woote jaare woon ci sëriñ Mor Lo euh, sëriñ Mor si Kura moom sëñ Mahamadoon Lo mujja moom sëñ Mor moom sëñ Mahamadoon si ak kilifaam ak mbokkam yi nga xam ne bokki dëkkandoo yeeg bokki taalibe yeeg ñëpp ñi nga xam ne wuysi woon nañ ko euh, ci woote boobu nga xam ne ci loxoom lañ ko jaarale woon mm, sëriñ bi ginnaaw boo xamee ne liggéey bi yàgg na Eh, woote bi da ko jaarale woon ci noonu ñu jaarale ko Serigne Mor eh, bi woote bi ñëwee nag dafa ñoom dañoo wuy si wuy si gu kawe njort ndax nañ daan wuysee dañ ko ful ay yooni yoon yooni yoon bii yoon eh, dañu tëj gox ba rek daanaka ñëw ñu gis ne xeet wu fa ne ci sunu mbokki séeréer sunu mbokki pël yi sunu mbokki wolof yi murit tijaan ku fa nekk rek ak loo wuyu loo mën a nekk rek tey mel ñoom ñëpp dañoo def wenn say wuy si woote sëriñ bi ah loolu it feeñ na ci liggéey ba ndax tax na diir bi mu doon am gën naa gàtt liggéey ba gën naa gaaw gën a sell ah loolu bi ma ñëwee ku baax ki euh, laaj na ma ko nee na ma liggéey bi de wax dëgg moom daan na gaaw ndaka jekk waaye ren di gën naa gaaw waaye indi naa ko loolu lépp ci ay leeral xamal ko ne ko nag niñ ko wootee woon Euh, gox yi ci Sénégal yëpp wuyu si nañ euh, ànd ak Pastef waaye euh, waaye Saloum googu it maanaam lañ daan def dañ ko ful ay yoon yoon yoon yoon wax naa ko it kenn ko ne la nga ca def. ñu ngi beral nag maire Koungheul Abdoulaye Wilane mm, ak cant ndax gis nañ taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom la taxaw ci liggéey ba. ci mboolem pexe yu mu am ak xam-xamam ak doolem ndax euh, ba ci communiqué yi nga xam ne moom lañ doon def ak tasaare bi nga xam ne moom la tasaare yaatal yëgle ba lépp lépp lum ci def rek ak seen ci nun moom it noo koy sant di ko ñaanal suñu borom wàllu googu muy yëngu suñu borom yokk ko ci te yëkkati ko dolli ko ay xéewal ak sutura te dolli nu ko dolli ko murid yëpp ak jullit yëpp. Euh, ci biir loolu nag yóbbante nañu ay sant cant yu yaatu yoo xam ne xëy na nam ko waxee sax nun mënu mënu mënuñ caa jaaraat waaye lu ci lu ci lu ci kàddu yi lu ci des rek dañuy xam ne ci nun la dese waaye moom cant ka matal na ko te it ñaan na ñaan gu yaatoo yaatu ab xolam sedd na it sant na gërëm na loolee nag kon euh, moom la yóbbante sëriñ fàllu Silem yi ah, mu bëgg mu war koo jotali mu war a cant yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëriñ bi nee tur yi nga xam ne ñoom la ñuy bëgg a tudd ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak kilifa yooyu wuy si kun ci tudd ak kun ci tuddut na nga xam ne tàbbi nga ci biir ñaanuk sëriñ bi waaye tàbbi nga ci biir cantuk sëriñ bi jëf nag boo ko seereelee yàlla ñu tudd ci saw tur ak ñàkku ca tudd ñoo ca war a yem ndax yàlla moom gëmmut taxut te mi ngi gis jëf yëpp yàlla yàlla fay leen mu ciy jiital sëriñ Abdou Samad si sëriñ Alhaaji si nekk ca Daarul Minan sëriñ Baara si nekk ca Sil sëriñ Abdul Xaadir si ndam sëriñ Abdul Xaadir si Manna sëriñ Fàllu si Daaru Nahim sëriñ Basiru si Daarul Wahab sëriñ Murtada si Bustaan sëriñ Mor si Bustaan sëriñ Mor si Kura Murit sëriñ Ousmane Ka meeru Lour Escale ba tey it bi nee mi ngi yëkkati kàddu cant di ko jëmee ci njabootu sëriñ Ali Mbenda Lo sëriñ Mor Lo Touba Ali Mbenda di xalifab sëñ Mbay Lo sëriñ Muxtaar Lo Touba Ali Mbenda sëriñ Mbay Lo Caxat di xalifab sëriñ Ali Mbenda Lo Alhaaji Abdou Khadir Diouf Caxat sëriñ Murtada Lo sëriñ Abdoulahat Lo sëriñ Mamour Sakho chef de village su Caaxo sëriñ Basiiru Congaan Touba Yatexay sëriñ Mahas sancaan caxeen ba tey sëriñ baa ngi sanc sëriñ Bamba Gueye bokki joore sëriñ Souley Sarr Touba Thiarène ak rakkam sëriñ Amdi Sarr sëriñ Moussa Thian Afi Thianeen sëriñ Amdi sek Koupantoum Alhaji Ibrahima Sy Darou Salaam Cekkeen sëriñ Mahas Ndiaye représentant fédération fédération daayira Koungheul yi sëriñ Basirou Seck Touba Koungheul alhaaji Cheikh Lay représentant xalif général des mourides Koungheul sëriñ Bassirou Lo représentant xalif général des seriñ basiru sekk sëriñ Bassirou Seck Koungheul alhaaji Top Ndindi sëriñ Cheikh Si Koura Mouride sëriñ Dame Top Bokki Sada monsieur Assane Diop président conseil départemental sëriñ bi di yëkkati kàddu yi cant di ko jëmee ci ñi nga xam ne suñ borom baaxee na leen ci ay xéewalam ñoo am ay oto fab oto joxe ko ba noppi def ca ab gasoil ak ñi nga xam ne amuñuy oto waaye joxe nañ ab gasoil ak ñi nga xam ne loolu lépp nag teewut dañoo bay ay tooli mbisaaw wut ay xànc def ko ci ku ne xam ne liggéey boobu bokk na ci la ko gaawal mooy xànc ya na ngóob ma farataa dugub ja farataa ni la xànc ya farata te am na ci ñoo xamante ni bi ab lim lañ ci liggéey andi ko ba tax na liggéey bi gaaw ñoo ñëpp sëriñ baa ngi yëkkati kàddu cant di ko jëmee ci ñoom mu ciy jiital alaaji moor lawa mbeng kura murit mbaari wilaan kura murit alhaaji ibrahima busa touba ali mbenda alhaaji sekk ndimbalaan kungel babacar diagne kar ibulum modou busa congaan touba ali mbenda serigne modou samb ribo kojole serigne moustapha ndaw touba ali mbenda serigne omar congaan darul minan serigne mourtala ndoum sil serigne mam amat samb kuy jéeri Mamadou Ka maire Lour Escale Ibrahima Pomane Touba Bogo Papa Diop Lour Escale Cheikh Ndiaye doomi Mbedda Ndiaye Koungheul Alhaji Cheikh Lay ak Alhaji Keba njaay Ndiaye luur sëriñ bi daal nee na mi ngi yëkkati kàddu yu cant ak yooyu ngërëm di ko jëmee ci mbooleem koo xam ne dégg nga ci saw tur wala déggoo ci saw tur mbooloo mi nga xam ne moom la camion yi yeboon andi leen sëriñ bi nee na liggéey bi mel na nu kawe njortam mi ngi ñaan nag ci darajey sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñuy tam wax na yàlla képp ku ma xëyal di ma gontal na nga faj aajoom wax na ne waqdi hawaaij allazina daamoo fii xidmati la lahum maaraamoo mi ngi ñaan yàlla mbootum bayit woowu yàlla na tàbbi ci képp koo xam ne teg nga sa tànk tubaa Daaru Salaam Maodo Murit di ñaan lañ fa liggéey yàlla nañ ko jariñoo ba des di sant ci wàllu oto sëriñ Fallou Gueye Touba Bokki Joore sëriñ Modou Samb Ribo ko jëlee Ibrahima Poman Touba Bogo Sadja Sanc Saada sëriñ daam Toob Bokki Saada Alhaji Abdou juuf Caxat Murit Omar Congaan Daarul Minan Babacar Diagne Sanc Ibu Serigne Ibu Loum ak Serigne Ibu Gueye Daaru Salaam Bambug Serigne Cheikh Bitey Manna Alhaji Ibrahima Sy Cekkeen Serigne Malick jëfam ju rëy xam ne jëf na ko ci liggéey bi agsi na sëriñ bi ne mi ngi ko ci sant jigéenu Kura Murit nag. ca lëkkaloo ci juróom-ñaari daayiri yi nga xam ne ñoo ànd di liggéey seexul xadim mi sëñ baa ngi sant ñëpp nag wa kaana xaqan makaarimul axlaaq al muhibbina li atbaahi xayril xadim ahlu salaamatu wal hidaaya taysirul asir nooru daarayni sahaadatul muridin sëriñ baa ngi sant ñëpp di sëriñ sant sëriñ Bamba Gueye bokki joore ba tey sëriñ baa ngi sant sëriñ daara yi nga xam ne dañoo ubboon seeni daara ànd ak seen dongoy daara dem ca liggéey ba di ci jiital sëriñ Mor Astaka Ndaamaatu sëriñ Fallou si Ndamatu sëriñ Mor sëriñ Abdou Khadir si Ndamatu sëriñ Mor Awa si sëriñ Abdou Lahad Sourang ak sëriñ Modou Mbacké si bàyyiwul kenn di sant nag maire Koungheul di Abdoulahi Wilane sëriñ bi ne mi ngi koy sant bu baax te di ko gërëm di ñaan suñu borom yàlla na ko yàlla defal tawfeex di ñaan yàlla liggéey bi képp koo xam ne teew nga ci moo xam ngay góor wala jigéen yàlla na yàlla faj sa ajo àdduna ak jooj alaaxira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.